waaw jërëjëf euh, sëñ Modou ñuy sant bu baax sëñ Fall di sant bu baax sëñ Mamor mhm. ci bunt yi nga xam indi nañ ko fi mhm. euh, mu mel nii rek melokaan wi nga xamante ni mhm. moom la ñuy sàkkoo li ñuy wut si ndax ndigal la te ku ñu mës dégg ci lislaam mu am ngërëm baatu ndigal boobu rek moo ko may dëgg la euh, pas-pas bi nag day mel ni fu ñu ko takk rek weesu na ko ndax gis nañu ne sëñ Mambay Guèye mii tey ci tey ci liggéey boobu la yenn ànd koog suñu amul si sàmm. ak yeneen jëwriñ yoo xamante ni. Mhm. Euh, dem nañ ci barab yi. Mhm. dem ci pénc yi. seeti yenn kilifa yi. waaye fépp fu ñu dem. Mhm. kàddu gi benn la. fu ñu leer leen ndigal li. kay kilifa pénc ma da leen naan sëñ Mouhamadou Mountakha yi na xam ne fii. ñu ne moo ko moom. ndigal li moom fas nañ ci yéene jiitu. kenn duñ ci mën def ci luñ ci mën ak luñ ci mënul. kon muy wane ni kon. loolu yaatu na. Mhm. ñëpp jublu nañ ci. Mhm. Euh, jànkatu xaside yi nag. Mhm. ñoom day mel nii dañoo jàpp ne lu ci waay di def ñoom nga koy dimbali. ndax bi may ñëw fii rek. sëriñ Xaadim Guèye. ak waa daayira mu bu naafi délégation bu takkulaa laa fa bàyyi. ñuy waxtaan di tënk ak di takk nan lañu fa fas def ci ndigal li. te ñoom jàpp nañ ne lu ñu yem ci ci jàng. du ñu ci yëkkati. dañ koy dañ koy def ndax mooy seen matt. di seen waar ci biir liggéeyal sëñ bi mhm. waaye lu ci ab murit di boole ngir sàkku ngërëm fas nañ ko ci yéen boole kon mu mel ni kon euh, ulaayka yu saariwuna fil xayraat bu ñu koy wax nag mhm. lu mel nii moo ko jar dëgg ndax xëccoo aw yiw la xëccoo lu baax la xëccoo njariñ kon day mel ni ñëpp ñu ngi wàcc jëm ci bis bi di ñaan suñu borom. Mhm. Euh, ci barkeb suñu Tuubaa mu dimbali ñu ba ñu àgg ci ak jàmm. amiin ni ko sëriñ bi digle santaane ko. ñu defe ko ni. loolu bu amee kenn ku ne ci ñun. dina yëgal boppam ak yokkute dana yégal boppam ak jëm kanam mhm. dana yëgal boppam ne mbir yi lépp lépp lépp dox na mhm. xanaa di fàttaliwaat rek mhm. euh, loo xam ne lu ñor sëñ Yuusu la mu di ci soññee te nga fàttali ko sànq muy euh, ñu xam ne murit yi am nañ ci yéene lool lu ñu xalaat rek ci lu baax ñi ngi ko ciy def ci ay xeetu xéewal ci ay baas ci matt ci ay laltu mhm. ay toogukaay ak lépp luy tax bis bi mhm. jag ci fànn yëpp mhm. waaye nag mu xam ne kenn ku ci ne ci coobare la koy def ñu ñu ñu ñu bañ a jàpp ne dafay yebale fenn di am dara lu muy laaj ci aw turam waaw mu yebal ñenn jox leen ndigal ñu laaj ci aw turam wala mu am lenn loo xamante ni sas na ko ci kenn kon yi ñu joxe ak fu mel ni daari isub tarix yi ñu wax fu ñu mën a ne ci biir réew ak bitim réew ak Serigne Hamzatu mi nga xamante ni gis nañu taxawaay yi mu ci am nee na barab yooyee lu fa waay aksil incha allah dana tàbbi ci biir liggéey bi mhm. kon loolu lañ doon fàttali mhm. di di sant di ñëpp nag mhm. euh, tey tey tey rafetlu liggéey bi rawatina wattaay bi ñu xam ne nii rek la ba keroog ñu yegg ci bis bi waaw waaw